والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم صاحب إن كل نفس لما عليها فلينذر الإنسان مما خلق خلق مما إنه على ربه لقادر يوم السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجي والأرض ذات السد إنه لخلف وما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 buur bi nga xam ni dañu koy sellal di ko wetal di ko jaamu di ko yaakaar di ko doyloo buur bi nga xam ni lu ñuy wax màgg dara gënu ko màgg lu ñuy wax sell dana gën ko sell boroom xutba bi nee na jàll an wasfil wa an tafakkuril mutafakkirin nee na ñiy melal te daq fee melal lu monti doon nee na mënuñoo melal ba melal yàlla mooy lan waa ni tafakkuril mutafakkiriin nee na ñiy xalam di xalaat ci fànn gu manti doon mënuñu ko jëmee ci wàllu yàlla ba xam ko ñuy julli nag salaatuk salaam julli gu bir ak ñaan yàlla dolli sangam bi sayyidina Muhammad ak kóolute tey ak ëllëg ak saabaam ñi nga xam ni ñoo ko soppoon ànd doo woon ak moom jàppale ko ngir taxawal kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñi nga xam ni ñooy taabiina yi ba ñu dox suñu digganteeg ñoom radiallahu anhum wa radu anhu ñuy kàbbar yàlla nag allahu akbar kabar bu bari lool di ko santit nag sant bu bari lool moom mi nga xam ne ci bisu àddina yi yàlla dafa ñu defal ñu am ay bisu feet ak bisu taarlu bis yoo xam ni dañuy feeñal sunu mbégte dañuy feeñal sunu cant ci xeewal yi mu ñu defal yi ñu mën a lim ak yi nga xam ni mënuñu ko lim ndax alxuraan nee na in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen bëggee tàkk mbaa ngeen lim xéewal yi leen yàlla defal mënu leen ko kon nag li mu xéewale woon yonent bi sallallahu alayhi te mooy baatu alhamdulillahi rabbil alamin baat boobu rek lañu koy delloo ngir moom sang bi la ma ca amoon ñu am ko ca nee na buur bi nga xam ni dafa set wecc nag ci lépp loo xam ni deesu ko wax set wecc ci los lool deesu ko def set wecc ci melokaan boo xam ne ni ñaaw na nit di ko mel mbaa keneen yooyu yëpp yàlla moom set na ci wecc di julli nag ci nga xam ne nag kuy kuy xutba di taxaw ci minbar moo la gën li feek nag li feek petax mi mi ngi mi ngi naaw dal ci garab di di di di di jooy wala muy woy mu ne amma baadu fa yaa ibadallah yéen jaamu yàlla yi jaddidul imaana fi saat fi kulli saatin wa ñi ngi beesal ñu war a beesal di ñaan ñu beesal sunu ngëm yàlla ci jamono bu ne ñuy rafetal yi yéene yi bala ñoo tàbbi ci jaamu yàlla gummanti doon wa iyaakum wa lil himaak fi lmaasi wa shahawaat nee na maa ngi leen di dénk nag nuur ci mooy yàlla ak baddeex bu ñu topp ñalli ñalli seytaane mi nga xam ni day sanka kon la nee na ngeen ragal yàlla ci li ñuy bëgg a wax mbaa ñu koy bëgg a def xaala taala innama yataqabbalu llahu min almuttaqiin jëf lu mu bari bari wax lu mu bari bari لا تعند كرجال يلا ركلا يلا دينغو خمنني لني بقى جبلو ما يتبسكي ما تهمو إند آيبي لن ينال الله لهمها ولا دماهوكا ولا ولا دماؤها ولكن ينال تقوى منكم دجاجيني درجي نغي أمي يلا ولا يفوي ولا درا jaamoo ko yàlla loolee ragal yàlla googee ci la yàlla di xool ne inna allaha la yanzur ila suwarikum wa amalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum allahu akbar allahu akbar min kulli kabir wa huwa ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ni'ma mawla wa ni'ma nasir ilamu nanu xam ni xat sunna li xurun muslimin xaaj nee na ku ajul sunaa sunaa leef na ci yow ci bis bi ci tedd nga am ci ormaam nga loj sa tabaski nga lojal ko it sa ñaari waajur yoo xam ne ni bëgg nañ ko waaye amuñu ko wala sa doom bu ndaw bu ko bu xam ni mat na te mënu ko nee na du keneen nag wen yut wen yatiman fa yudahi lahu man alayhi tamkiin nee na bu fekkee njirim la nag kii méngoo ay mbiram mën na koo tabaskil من وذلك مشروع من زمن أبينا خليل حيث أمر بذبح ولده إسماعيل أمر وحي لا أخص أحلام نينا نينكو سنة لينك يونالكو تا يسوارو إنت إبراهيم بغا خميني نيسرنا ني سو سو أمي دوم دنا كورين دي جاموكو يالا يالا تي بفهم باي بمو فاتي مو فاتي لكو نيكو فاليوفو نزرو أوفي بنزلكه yaa ibrahim uufi bi nazrika li nga ni soroon ko matal ñetti fan mu di ko gént ba ca ñetteel ba leen su am lu wér ni lii ci yàlla bay ko tegtal bi nag alxuraan indi na ko ci wax waxam jooju ma ma balaxa ma saaya xaala ya bunay inni ara fil manami anni azbawka ba mu àndeek doom ji mu nuru ko lool eh, bëgg ko lool jeex ci moom takk mu ni ko nag yow sama doom de neew ko dama lay rendi neewu ko dañu ma wax ma rendi la dafa ni ko rek mel na kuy diisoo ak moom dama gis ci gént daal mu mel na daal dama lay rendi léegi daal xoolal ba xam yow loo ci gis mu ne ko yaa abati if'al maa tu'mar satajiduni insha allah min as-saabiriin mu ne ko yow sama boroom li lay xamal ni Ismaayil yonent la dañu ko if ifal ma tu umar waaw neew ko defal li nga bëgg dañu ko defal li ñu la sant kon Ismaayil xam na ni am na ku sant baayam lii te mooy yàlla mu daal di nangu xaat mu ne ko sa sa tajudini insha allahu mina sabirin boo léegi yowmal xiyaam boo duggee ci xadara aljana ñëy muñ muñ da ma fekk man di di di gën a muñ fam tasala am am rabbihi taiha wa xaraja bibnihi ay suumira musria مودادي جفي ديغال بروم نموكو سنتالي يالا خوال تشا لامو تشا خوال فسارت الاداهي واجبتا عند ابي انيفه نينا تشلا تبسكي بايكو نك نيك دول وار تي امام بني واخ ابو انيفه بشرط الاقامه وملك النساب داي فك نك nga tok nga nek nga nek du muqim ko xamni mi ngi ci barab barab nga man nga am djeggi nak nga xam dula yakal dara wa sunnatan inda baqiyatil aimatil anjab nee na yeneen ni des nag ku mel ne Malik ak Shafi ak ak ak anbal ñoom dañu ne sunn la ci képp ku julli tabaski nag moom li ci am solo mooy li ñu ci jànge ndax yontaal Ibrahim ci moom la ñu xamee ni ndekete nit day ñaan njaboot gu baax lu jiitu muy am kër ñaareel ba gis nañu kéemtaanu boroomam ci ñaanam googu bu mu ne rabbi rabbi habli min as-saalihiina ñaanul doom noonu rek daal di bàyyi da ma jox ci doom yi nga xam ni day bokk ci saalihiina yi gis nga yonent Yàlla Ibrahim téeméeri at ak ñaar fukk daanaka mat na ko soxnaam Haajara daanaka jege na juróom-ñett fukki at mbaalu teg xam nga ni kooku xel mënta nangu ñuy war a am doom waaye ñaan na ànd ak wóolu yàlla bañ a bañ a tay bañ a bañ a xaddi yàlla feeñu ko nag indil ko Ismaïl moomu ngir la mu nisaroon ni dana ko rendi te beneen jàngat bi mooy yonte yàlla Ibrahim yàlla da ko tàggatu da ko xaliil te xaliil boroom xam-xam yi dañuy werante nañu werante خريط أك صبي بن موتي غنا فور نيني صبي غنا فور نخ سيدنا محمد مورن صبي الله نيني خريط مو غنا فور نخ يوتال إبراهيم مورن خريط يلا نيني أك لتي غنا أم أم نيني نك خريط أك صبي ليلين ووتلي نينا خريط موم نينا بني دقون سنبي نينا بمجيح تك نينا موم جرال نكو نيو أوبرن نفهم pooseel la ko yow mii xaritam xarit mën naa àgg foofu ci xaritam ñu ni xarit day soo ñàkkee ab tànk moom dal jaral jaral na ko ñu opéré tànkam pooseel la ko moom mu ñàkk tànk loolu mooy diggante xarit ak xaritam ne ñu soppe nag baax na waaye soppe moom nee na bu ñu dégg daggee nopp bi mun laa muñal yàlla ko dogal mbaa mu wutal a garab rek da ci yem waaye àgg ci nag dagg noppam jox la am na ñu ni moom soppee du ca àgg léegi nag yonent Ibrahim yàlla seet na ko nee na ko xadis taxatu xalilan lama wahabta xalbaka ila rahman bi kaf chey ni am la am la xay ni axranay ni yanduran fi sawaat wa yamshani fi sawaat wa yabulkani fi sawaat yonent bi salaa salama ci roy loolu sunnatan rendi woon na ñaari xar yoo xam seen bët dafa ñuul قوم ينول ديك تانك ينول مولند لأنك وح بوجك بي الله بسم الله الله أكبر اللهم هذه عن محمد إن عبد الله نيكو جامو يالا جي داي ميغي بايكو تي محمد دوم عبد الله بوكو نيارل نك من بسم الله الله اكبر هذه عن محمد وان ان كل من لم يداي من امتي دادي نك بي نك نيارلو ادي تابسكي بي نك maa ngi ko tabaski man muhammad ibn abdullah ak képp koo xam ne ni amul tabaski tey ci xeetu muhammad ay salaam allahu akbar wa anu sallallahu salama azimu dahayakum fa inna ala sirati matayakum moo tax mu na ngeen màggal seen seen seen tabaski ndax yomal xiyaam mooy doon seen warwaay ca siraat wasasinuha wastasminuha neen ko rafetal na na ngeen fexe ba lu mu rafet xeeb leen na duuf it nag فعلى ظهور يوم يوم القيامة يركب ووقتها الإمام بعد صلاة وخطبته ولغيره بعد سبعي وما له قبل مضي زمنه يسار فليده من خير الصغار نينا نينا جامع وقتهم نك نينا موي بإمام رين جولي خطبة رين دي فوفيت نانيو خمني بسغل الإسلام بقول فن آدا الإسلام بقول فن luy nuru xiram lislaam bëggul fenn luy nuru jaamu leneen lu dul yàlla moo tax suñu xëyoon rek di taylee tabaski ñu rend suñu xar dañuy daal di yem ak yahood yi yem ak nasaan yi ndax yàgg nañ ko def yem ak nag ñenn ñi nga xam ne nag bu ñu dee faj dañuy rey am xar wala ñuy ñaanlu dañuy rey am xar yàlla nag jiital julli gi moo tax lu mat a fonk la teg ci xutba bi donte xutba bi moom nit ñi dem nañ ba jamono boo xam ne sax bu yàggee rek ña ngay ñaxtu ko xul waaye wama rasulu illal balaa nañu moytu imam ëpp ñu sens sens bi mooy man li li ñu ma sant rek mooy jotal su ma jotalee wàcc pare naa ci loolu rek la ma ci yàlla sant te mu dëggu ci man nag ñàkk dëggu ko sama digganteeg moom la ñàkk jëfe gi sama digganteeg moom la waaye li ma li ñu ma sant ci mbar bi mooy ma jàng ko rek ba mu jeex ma wàcc Seydi Hadji Malick xutba bi da ko daan jàng ba mu jeex sëriñ Alioune Ba dafa ko daan jàng ba mu jeex sëriñ Omar daf ko daan jàng ba mu jeex sëriñ Habib daf ko daan jàng ba mu jeex benn bis ñëw naa ci moom ni ko xutba bi te nga ko te ñu ko wàññi ndax dafa gudd mu ne ñemewuma ko ndax góor gi nga xam ne kon orma soo àndeek mag orma daf cay baax léegi nag xutba bi gis ngeen ni ma ko jànge jàng naa ko jànginu jamono ci tabaski yu jëkk ya ak kori yu jëkk ya bàyyiwuma benn araf te xutba bi mën naa laa wax ñaata baat la ñaata virgule la ñaata point la lépp dama ko wàññi pour xool ñaari xutba yépp taxawaay bi bu jëkk beeg bu mujj bi ma ma firi ko ngir jamono ndax nit dafa am ñu naan xutba téeméeri at ba tey ñu ko ñu ko ñu koy ñu koy xutbaa fekk dañoo déggul jamono alxuraan ñaata at la am alxuraan ñaata at la am ndax kenn dana xalaat alxuraan ñu soppi ko ndax déggatul ak jamono tey boo ko jàngee day mel ne tey la wàcc xutba yi nag ku gis ni ñu bindoo xam ni xutba yii fa alxuraan bàyyi koo xutba bii fa mu bàyyi koo soriwu fa ci mooy xadaratul ilaahi yàlla sànni ko ci dënnu nit yàlla yooyu nga xam ni gis nañu lu ñu gisul mos nañu lu ñu mosul xam nañu lu ñu xamul léegi nit ñi ni xutba bi dafa yàgg ma dagg xutba ñaari yëpp wàññi ko wàññi wàññi nga xam ne bu doon téeméer indi naa juróom fukk yi ñu ni fi mu dugg lu yoonam ci nangam lu yoonam ci nangam boo gisee Sénégal yooyu ni waxoon Sénégal man ko xutba yi bu ko weesu dafa xam ne nit ñi waxuñu dëgg te boo génnee Louga gi Kébémer Dakar foo fi dem rek dañ naan xutba actualité la waa assemblée nationale ni ñuy dajaloo di saytu mbiru réew mi noonu la imaam yi war a saytoo mbiru réew mi sama papa Ami Habib Ba rahmatullah dafa ni Tunisie benn bis dañoo yokk mburu ñaari dërëm mburu dañ ko yokk ñaari dërëm nee na imaamu ratib moo taxaw ni gouvernement bi na dañ nee na ba taksaan daataan jot dindi nañ ba taksaan daataan jot loolu ñu tegoon dindi nañ ko waaye nag xamuñu imaam lan mooy taxawaayam xamuñu lan mooy rôlam ëllëg ñu taxaw di ko jàppale ngir jàppale lislaam bi dañuy wëlbatiku xool ki taxaw rek nu nu mel ci yow rek bu dee soppe soppe la bu dee adversaire adversaire la bu dee noon noon la bu dee bu dee aji mbañ aji mbañ la loolu nag bokk na ci li ñuy tardeel ba mënuñoo àgg ci yàlla ma wàññi xutba bi xaaj ko jël suwaat indi lu gëna gàtt nga xamni xéfa xefe la korite sa moo tane ndax korite mom ku ne xam na ni boo wàccee laax laax rek fa sës waaye tabaski nak mom moy li foor nga xam nit ki bàyyiwuñ xel ludul ludul ludul dul xar mi ngi bëgg rendi waaw motax nak di baye xel julli gi di baye xel khutba bi am solo ndax mo lay moy dox sa digeentek jaamu xëram moy dox sa digeentek xam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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا الحمد لله رافع المسموكات وضاء المبسوطات الذي من علينا بما لا يحصى من النعم سبحانه للجود والكرم وهو الذي ابتلى الأغنياء حل يشكرون وحقوق يعدون كما ابتلى الفقراء حل يصبرون وفتله يرجون وهو الزاعر بمعنى نصب علمون الأغنياء وبما عنا سميعي رحمي على الفقراء نسنت يلا نك دل دل تشلين كورون سنت ديكو سبال لوراو سبا اسمان جروم يار اك سوفي جروم يار موم ميلين ييكتي ترال كي تخاوال كي سنت بور بيغا خامني لي منيو خيوال سي اي خيوال من نيو كو نات من نيو كو واني من نيو كو تك moom moo nattu borom alal yi jox len alal di xol ba xam ndax dañu sant yàlla génne la ci war ak ja ca war te mooy asaka non la nak nat nattoo fuqara wi way ñak yi di set ba xam dañu dañu muñ bu nopp yaakaar yoolu muñ moy la fa yàlla neena wa huwa zahir bi nee na وهو الظاهر بمعنى اسمه الأغنياء وبمعنى اسمه الرحيم الأخرى يلا مو فيني وي أم omal yi ci turam buñu wax moo ne feeñu way ñak ci turam buñu wax rahim yàlla kum feñu ci tur rek lolu day nek sa melokan wala mu nek sa jikko wala mu nek sa alal man akramahu fa li fadlihi wa man aanahu fa li adlihi ashhadu an la ilaha illa allah wa la sharika lahu faal ma yurid bur bi nga xam lu ko neex def wahdahu la sharika lahu اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته من قريب وبعيد yaa ayyuha alladina amanu ittaqullah xuula xawlan sadida mu ni yéen ñi nga xam dañu gëm yàlla nanu àndandoo ragal yàlla àndandoo di wax lay dëgg ndax dëgg rek moo wóor kenn du ci taxaw daanu waxu anfusakum wa alikum naara nañu fegal sunu bopp safara fegal sunu njabooti safara woo xam ne tàngoor wa tar na ne wa alamu anna dunya daaru kulli shaxin wa tarid danañ xam ne àddina day këru képp ku texee di ku ñu dàq ci xadara yàlla yàlla ñu ca la musal wana laaxira hiya daaru kulli mutiin wa said laaxira nag mooy këru képp ku jaamu ko ci yàlla képp ku texe nee na na ngeen yóbbalu jóge ci kër gi jël jëm ci kër gee nee na suma la suma alamu ayul ixwaan aadan laahu wa iyakum min shar shataan an laysa al aid liman labisa al jadid inama al aid liman taatuhu tazid nañu fexe ba xamni ni tay gi dal nañu ko jappé feet guñu yàlla jéggal suñu bakar way bu ma bañ nek nekk guñu solo rek taru ak lek yu neex rek yam ci walaysa al iid liman tajammal bil lisbas wal markub inma al iid liman taatuhu tazid neena na nek nekk go xamni xam suñu jàmm yàlla def def def ci def ci yokku ndax guddik bi rek yàlla ci la commencé woon di délai ay mbalaanu sutura mbalaanu xéewal mbalaanu jéggal mbalaanu goreel Abdullah ibnu Mubaarak Dia laajoon na benn labbe ni ko kañ la seen feet mu ni ko saa yu ma xëyee ba jant soo mooy ma yàlla bis boobu bis feet la ci ban kon nañu may tëndiku nag yàlla ni jàkk ci ñun fekk ñuy wax lu waxuwul yàlla ni jàkk ci ñun fekk ñuy jëf lu jëfuwul yàlla ni jàkk ci ñun fekk ñu yore melokaanu bu mu bu gërëmul te saamahu fi ma baynakum min uquq nee nañu jéggalante nee na nañu moytandiku tooñ nag yàlla li mu gën a bañ mooy tooñ nañu matal kóllëre yi wa adul amanaat nañuy nañu nañu dañuy delloote ndénkaan yi nañu ko nañu ko dénkee woon ba ci yóbbante ci la bokk ayul xwaan ilamu an allaha amarakum bi kitaab yi mutabian bi tafsir suma ablaki bi salat wa tisil tasil anabil karim ay su xaala mu bi abadihi ka karima inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima لبيك اللهم ربي وسعديك والخير كله بيديك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين صلاة تفتحون بها أبواب الرداء والخير والسعادة والتيسير وتغلق بها أنا أبواب الشر والشقاوة والضلال والتعسير وتكون بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فني مولا ونم نصير ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة وعن الخلفاء ذوي البيت والإنابة الذين خال عليه الصلاة والسلام في عقيم عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين أدوا عليها بالنواجذ جعل الله إياكم من من إلى واخذ اللهم فرج هموم المؤمنين واصل خلاص المسجدين وفك عصير المصدرين واتوب على الوساة والمذنبين ووسع على عبيدك المخلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وعاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك وأتي جماعتنا وجميع المؤمنين الخداع والإجابة والقبول والتوفيق يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين واجعل البلد هذا آمنا مطمئنا يأتي رزقه من كل مكان وقنا كيد النفس والهوى والشيطان واجعل البلد دار عدل والإسلام يا ذا الجلال والإكرام وننظر إليك ربنا أكف الأمال متوسلين بجاه نبينا والصبي والآل أن تحول حالنا إلى أحسن الحال وأن تفرج عنا ما نزل بنا من الأحوال واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولإخواننا ولإخوانهم ولأشياخنا ولأشياخهم ولأحبائنا ولأحبائهم ولمن ينتب إلينا وينتب إليهم دينا وتينا ولمن أحسن إلينا أحسن إليهم ولمن أساء إلينا أو أسانا إليهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يامن الأرض أجمعين عامة إنك مجيب الدعوات ومخيل الحووات وابلنا لنا خراسا من أزواجنا وذريتنا وذرياتهم وعامل رواتنا واستر عوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولخ